nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi faral di seetaan seen teraanga heure bi wala ñi nga xam ne ñi ngi faral di seetaan mm. maa ngi ñaanal ñëpp jàmm mm. waaw muy yàlla na jàmm ji yàgg euh, ñëw nga un peu en waaye tey dinañu la euh, fàttaliwaat li nga xam ne jot nañu ko jàll nga joxe ci sa gis-gis bokk na ci Guy Marius Sagna mi ñu agressé démb fi nga xam moom moo di ca Togo sa jàngat ci euh, agression bi nga xam ne moo dal ci kaw waaw Guy Marius Sagna gis naa ko ñu duma ko ca Togo duma yu ma rafetlu nag wax dëgg yàlla. ah. sa mbokku sénégalais ñu waaw xam nga xam nga danga am sa doom sax. Mhm. nga bëgg ko lool. Ah. après nga yëkkati yar di ko teg ci yaramam. du caagee ne daf laa neex rek nga koy dóor daa am lu def wala du noonu. Guy Marius demul Togo rek. wàcc ci aéroport bi rek ñu duma ko Guy mari dafa tooñ président Togo jiiñ ko coup d'état constitutionnel ca parlement bu CEDEAO la ko ko jiiñe woon am benn togolais bu jóg attaqué ko dal ci kawam xëccoo faak moom lépp fi la fekk gii mari nag ne xaaral ma yokk sama degré mooy naa dem ba biir Togo xas borom dëkk ba ci biir dëkk ba bu état togolais dumawu ko gendarmerie dumawu ko ay policier dumawu ko ay citoyen yu mel ne man bëgg seen réew ko fekk fa mu nekk duma ko sax dañoo bëgg réew ma bëgguñu ko ko salfaañe dal ga réew ma am lañ bëggul ko ko salfaañe ndax Guy Marius Sagna gannaaw bu mu salfaañee sunu réew xañ fi maanaam Guy Marius Sagna ñi mu fi xañ liggéey war na mat suñ ko calculer war na mat 2000 personnes yoo xam ne Guy Marius Sagna moo leen xañ liggéey moo tax liggéeyatuñ. fii Sénégal fii ci Sénégal mooy ñi doon liggéey Auchan baatu Auchan dégage boobu. moo tax ñu yàqal Auchan loo xam ne tax na ay junniy sénégalais yu fa doon liggéey Auchan dàq na leen parce que mënutu leen fay profité na situation bi wala mënutu leen fay dàq na leen à cause de Guy Marius Sagna discours yooyu nag bu bëggee dem di ko tenir fu mel ne Togo waa Togo duñ ko nangu moo waral duma yi te duma yi sax sedd naan duma yii ma gis garaawul noonu waroon nañ kaa gën a mën a duma duma yoo xam ne ëllëg bu déggatee réewum jàmbur dina ci tëj gémmiñam te Guy Marius moo mën tuumaal nit nag ndax baatu coup moom da fi ñu koy tudd dafa bari ndax général Birame Diop mii bu ñu fàttalikoo à l'époque Guy Marius Sagna moo ne woon dafa def coup d'état foncier c'est-à-dire Thermocide la doon dagg di jaay lu toll ne général mu tuumaal ko lu toll noonu léegi nag lii alerte la ci moom ndax dina tax bu tooñatee réewum jàmbur dina xam na mu fay demee te Guy Marius Sagna mii bu ñu ko téewul dinañu fi indil guerre yow imaginel yàlla tere bu ñu ko rayoon Togo nu ñu suñ diggante Togo nu muy mel boobaa noonu la ñuy mel boobaa kenn du ko rafetlu te ba muy dugg réewum jàmbur tàggoowul. yow eh, dèjà yaa ngi rafetlu dóor yi. dóor si lam defa tax. wala koo rafetlu lam defa tax. man bi may nekk xale sama papa dafa waxoon ay xaritam Abdou mii ku ko gis mu def lu dul yoon maanaam bu ma tàggu. ni ngay comparé bokkul. Guy Marius du doomu réew mi. ah doomu réew mi ak sa doom yow. léegi ah, sama doom daa réew mi. Eh, waxuma waxeewu ma foofu yëpp. ah loo bëgg a wax. li may wax ni dafa ah. jéggi li ngay wax yow. léegi d' accord nga. da koo bëgg a comparer. léegi d' accord nga. waaw benn Congo la jóge ca kongo ñëw di ci biir réew mi di saaga Bassirou Diomaye fay ànd nga ci. non duma ci ànd. loolu la def maanaam Guy Marius gannaaw ba mu toogee beneen réew. saaga président Togo yamu ca de dafa jël avion dem ba biir Togo. continuer di ko wax la mu koy wax yow ku ko defoon fii buñ bu ko sénégalais yi duma doo wax lii man nag man damaa bëgg man xam nga man samay mbir lan la hmm. man damay bëgg nit di wax sa aqulaay temps la Ahmed Suzanne Camara li mu wax li mu wax euh, Bassirou Diomaye Faye bañ tëj ko ñaawlu woo ko de neewa waruñu ko woon tëj Guy Marius Sagna tey président Togo mënoon na koo jàpp dugal ko ca kaso ba parce que baat bi mu jël dafa garaaw nag dangaa def coup d'état constitution te benn tuumaal na ko wax na lu dëgg coup d'état constitutionnel mënul am ci benn réew parce que réew boo amee majorité mën nga bu la neexee nga demander député yi ñu modifier la constitution bi loolu demande la député yaa koy voté du président moo koy voté député yi nag bu ñu defee seen intime conviction seen akulaay taala modifier la constitution bi amoo ci benn responsabilité yow sa bëgg-bëgg nga demandé député yi ñoo waroon a xool njariñu réew ma kon ma ngay tooñ président bi ñoom ñii nee nañ bu ñu amee majorité dañuy modifier constitution bi defaraat ay defaat ay réforme kon dañuy def coup d'état foncier coup d'état constitutionnel gis nga euh, kii nu mu sax Aliou mhm. loo far far far far far teewul ngay sóoraale sa digganteeg yàlla mooy sama xarit bu ñuy wax seex sekk danaan ma puudar boo dul suy sa góom bul nangu ñu suy ko ci góomu jàmbur Bassirou Diomaye fay mii li mu def lan la xanaa kon coup d'état signature de la nation la def te kenn du ko wax woowuñu fii le treize le douze mu ne bàyyi leen ko ñëwatu leen loolu nu mu tudd. te looloo gën a garaaw les président Togo def. loo ko bëgg a jàppe yow. la léegi loolu nu mu tudd laa bëgg xam. c'est-à-dire suñu signature nga jël sa kàddu nga jox ñu ko ñun ñëpp waaj wut suñuy basin wut suñuy marakis fas yéene dem assemblée toog ci kaw xam fu réew mi jëm. ñii dem ci seen i tailleur ñawlu ñii def li ñu war a def lépp ñii ne ah suba de sama programme Aliou damaa waroon dajeeg yow mais nañ bàyyi ba gannaaw soo parce que damay dem assemblée. ñii ne non mënumaa génn parce que tey damay seetaan euh, premier ministre parce dama bëgg a xam ci ban euh, alal ji ma yor fan laa koy investir ñëpp toog na ba ci jeudi ba yow sa sa programme yëpp annulé nga ko parce que yaa ngi xaar vendredi nga mën a dem assemblée. mais naa la yow am Aliou mënatoo woo Ahmed ne ko ah suñu daje bi nañ ko programme waat parce que foog ma ko ko Ahmed amaat na beneen programme investir ñi war a investir seen alal ku ci nekk euh, yaa ngi ne ah kon léegi naa dem beneen réew parce que ñii xaw ma fu ñu jëm conséquences yooyu mesuré wu ko de mu xëy na ñu nax naa leen léegi loolu laa bëgg a xam nu mu tudd. léegi loolu nga bëgg wax ni moo gën a garaaw. foofu li président togolais bi def foofu. parce que nu mu yow tamit nag. mooy fooy signature kii. mais moom wax na wax na lu leer. dara leeru fi. xanaa déglu woo ko. dara leeru fi. Bassirou Diomaye Faye moo jërta diglu jë jëratul diglooti sax parce que nag moom kàddoom moom boo ko digloo léegi xam nga nit kàddu la sëñ Abdoulahat nee na nit. ay waxi renam ak jëfam daa war a méngoo léegi jomaay jo wax na léegi wax ja deñ léegi jomaay bu waxatee léegi yow Aliou da nga may forcer ma gëm ko est-ce que man man tey jomaay wax ma ne gëwuma ko est-ce que yow est-ce loolu gën a crédible jomaay wax ma ne gëm naa ko parce que woo na ma fi euh, vendredi kat jeudi mu ne ma nax naa la looloo gën a garaaw dem demander say député ni leen modifier leen ma constitution bi mais Diomaye keroog bi mu demandé député yi ne leen ñu modifier constitution mën a tas seet euh, euh, conseil économique bañuñu léegi lu tax député Togo yi bañuñu dañoo waroon a bañ ne ko du ñu modifier constitution bi mais ñoom ñoo ko nangu. modifier ko président bi lu ci doon li li yi def nga foog ne tasum assemble bi ak ñàkk def DPG bi ci kan lay gën a métti kan wu Diomaye wala. man waxuma tas gi de yow yaa ngi ci tas gi man waxuma tas gi. waxuma DPG xam nga ci lan laa ne. Ah. signature ba mu bind la mu bind. waaw ah. signé ko. wax ko nga dégg ko ma dégg ko mu dem defu ko. waaw le fait defuñ ko nga yaakaar ci kan lay gën a métti. non non waxuma yi métti bi yow yaa toll ci métti bi. non man dama lay laaj def non non métti bi xaw ma ku mu métti man xaw ma xaw ma ku mu métti man xaw ma ku mu métti man moom bettu ma méttiwu ma ndax jikko jooju laa xam ci moom mais am na sénégalais yoo xam ne loolu neexu leen am na sénégalais yoo xam ne vendredi liñ doon xaar mooy ko orienté réew mi fi mu jëm. yow mii boo yore sa milliard nga xam fan nga koy investir kii xam fu muy ñu ñun yox étudiants yi xam seen ëllëg njàng mi xam ko napp gi xam ko càmm gi ñëpp xam ñoom nan lañ war a def mais ba léegi kenn xamu ci dara loolu nga yaakaar naqariwul ñenn ñi bëgg réew mi. waaw ma ne maanaam conséquences yi. la fay tukkee ci a après conséquence man muy metti loolu xaw ko. Ah, xaw ma ku muy metti wax dëgg yàlla. waaye jëf ji jëf ji moo warutoon a am. te moo gën a ñaaw lay président Togo bi def te Guy saa Sagna waxu ko kon daa yëpp président Togo bi moo tax ma ne ko du ma ne la duma yi lépp bu ñëwaatee ci duma yi lan la def. da président Togo yi dafa demandé assemblée ñu modifier ko constitution bi demande. pour pour ñu modifier ko constitution bi la wax. waaw ma modification pour lan la. non modification daal la demandé lu mu ci jublu moom moo xam. mais modification la demandé waaye xamoo lan la ba pare nga ne. non si li nga ma bëgg a dugal man xam naa li tax mu def ko. parce que dafa bëggoon a defaat mandat. ku ne sañ na ko. bi la neexee nga demandé constitution bi. jomaay bi bëggee tas assemblée waa conseil constitutionnel demandé wu leen ñu jox ko. yow da ngay demandé forcé woo kii nag demandé wul dafa daf ñu maanaam ci coobare boppam dafa la ñu la ñu wore ñun mooy moom moo jug yeewu naan kafeem naan meew tëdd soxna si defar ko ab jasineeram paasel ko ko may ma rek ba ma daaneel dafa yomb nag non non soxna si paasel ko ab jasineeram mu defar ba jekk xëy jëlu bigam nañu vendredi kat na ngeen ñëw dañ leen di wax fi réew mi jëm jeudi mu ne bàyyi naa ko looloo gis ngeen yéen a koy fooy looloo gën a garaaw fuuf que ki dem jël document demandé demande kii dafa demandé demande mooy man kat damaa bëgg a def ñetteelu mandat assemblée li laay demandé kooku moom xam nga forcé wul kenn damaa demandé xamul dina am xamul du am mais nag kii da man signature bi ma yoon may moom laa jël fowe ko kàddu ga dem na signature bi dem na te Guy Marius Sagna nanguwul wax loolu. pour gàttal rek du may Guy Marius Sagna yi moom. wax dëgg yàlla gënoon a métti gi laa bëgg. ba jox ko leçon ëllëg réewum jàmbur doo doo doo dem di xas président bi wala nga koy tuumaal comme nii la defoon biram Diop mu sedd mu def ko keneen te coup d'état foncier coup d'état kuy rax lu tax waxu ko waa Mali waa Mali nag li def nu mu tudd déggoo Guy Marius ngaa ngi ci de ma nga ne pat kon kii dumuwuñ ko dóoruñu ko de. dañ koo raay raayal parce que mënoo gis ay réew wër la Burkina Faso Mali Niger def loo xam ne kenn mënu koo xam lu mu tudd te nangu woo koo wax nga dem koo xam ne dafa démocratiquement la jël kayit jox assemblée ci démocratie la ko teg yow kee bàyyi ba guddi nit ñi tëdd foofu moom bu ci xuus comme te xamoon nu mu demee moom foofu moom bu ci dugg. <laughs> <laughs> léegi yow nu mu demee raisonnement non pour ñu modifier ko constitution bi. laa bëgg a xam pour lan la. mais bul ñëw ci xam gi ñëwal xam ndax dafa demandé wala demandé wul. sa farfarloo gi ngay bàyyi booy man laaj. sa farfar dama ne ngay wax waxuma ko man xam nga ci lan laa ne. xam nga ci lan man dama lay laaj. ma ne xam nga ci lan laa ne.